tukkee ci suñu xarit bu ba yàlla baaxal muy suñu dëkkandoo ñu naan ko sëñ Maxtaar Seck bu Mboro jarul sax ñuy guddal kàddu gi dañ ko koy jébbal rek mu commencé waxtaan wi dañu ko déggloo ñun ñëpp. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sunu bopp. tey waxtaan wi noo ko defee fii ci mbay mbay fii ci kër Ousmane Ba di sunu xarit di sunu wëllëre di sunu bokk ci sunuy nit ñu nite ñi ah li koy sabam nag mooy lu yàlla na ma war na lu mu yeggale daa jot lu jotiti yomb li nga bëgg li yàlla dogal nag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 ndax damay wax ni àddina ku mu neex fi yow ba nga juddoo yàggul barke ku mu soppi si jikko da nga juddoowul alal ku mu soppi saw doxin ba nga amee yàggul gor si war a juddu juddu nag juddoo fi mu war a juddoo juddoo ci ni mu war a juddoo màgg takku tekki foo mën a dëkk ñi daa sa baay nuy si la loo jige jige say bokk nag te takku woo ku takk teggi la waaye loo sori sori say bokk te takku ku ca takk tekk seeg yow jamono joo gis nag ji koy jamaale la yor waaye ku yàlla ndiiku da nga àggali kon jamono ji neexul ëpp naa wax sama jamono neexul lañu war a wax ndax addinam néeg la ku ci tàbbi tëju di nga tijji ñu gis la wala ñu ubbi ko yér la jamono nag mooy dëkk ji yàgg loo ko giseel ba di ko wax xamal na lu ko ëpp mbaamu déggal la ko da ko caaba kon mbooloo mooy tàbbi war ngaa xam la leen boole lan la bari mbooloo bu doon taxa a tekki dara bu ñu tànn yilimaan dem ca mbëri làmb ya te ndaanaan ak boor ak chef de quartier ak yilimaan akum tudd tàbbi ci ab dëkk am leen ca yomb na maa leen judduloo jafe kon daanaan lu dul foosi si rendi ak mbëtt mu dul tegg yoon ku ci déggul fi la dëkkan dina yàgg dégg na yaram yarami fanaane ndaanaan day foo si rendi te yàlla du yónni ñett yàlla du yónni ko soxor yàlla du yónni ku ñaaw jikko yàlla du yónni ku amuli bokk ndax li tax ndawal yàlla jëmu jotee fees dell ko baax wala bon dina ko nuyu waaye du am place kon yàlla du yónni ko soxor ndawal yàlla ku mu gis da lay yéene jàmm te du tàbbi ci lu yoonam nekkul kon yàlla du yónni ku ñaaw jikko ndawal yàlla ko sax ci yàlla santaane mbokkam nga ku bàyyi lu yàlla tere mbokkam nga kon yàlla du yónni koomi lu bokk tayit nag soxor ak kiñaan ak ñàkk a doylu fàtte ne di nga dee doo nga ko yóbbee nit te doom bu gàddaayee bàyyam ànd ak ndeyam dëkk bu mu jëm dana ko jub waaye du ca àgg kon am dëngoo mattale xarit la waaye koo bàyyi mu wéy daga témbe caaxaan la ku bàyyi garab garab bala doomu aadama joo gis nag saa yoo ñëwee taxaw bëstul nga waaye ku àdduñu xam sa poids moo tax ndaw loo fekk mu yaru te bañu ko yar fekke woo ko loo ko ëpp ëpp ay at dee ko teey ndax damay wax ni boo nee daani ñu ni déglu leen raw ngay buum ba teg kàddu goo ca doole di nga yeew sa bopp mbaa nga yeew say bañ kon man barmool bu nekk mën naa rëcc ñu dab ko delloo si ba mu des barmoolub làmmiñ te kuy waddaw làmmiñ soo noppee rafle accident ci machine lañu ko séenoo waaye ci làmmiñ la yéese ndax làmmiñ bu waxee ba def accident ci biir kàddu ga jëmm jay suux te boo nee daane ñu ni teg raw ngay buum ba teg kàddu go ca doole di nga yeew sa bopp mbaa nga yeew say bañ ñàkk a wax dëgg ci mbooloo ci ku ñuy déglu ku ne ñett la ko yóbbe boo dee wax ngir bëgg sa darajay bopp doo wax dëgg boo dee wax ngir bëgg darajaa ñi ngay waxal doo wax dëgg boo dee wax ngir di ci seen lu ñu lay jox doo wax dëgg doomi gor su ko jantum nattu tiimee la wubbi néegu muñ te dugg ca te xam ne yàllay séddale wërsëgu àddina buur la ku sa numéro génn nga jot ci sa wërsëg nag daañu la jéppi ndax daaw jàll na noo ngi ci ren te wërsëgu déwén yàlla du ko indi ren wali yoog borom wërsëg na ku ñu sopp soppi la sama yaay liggéey na jërul wax ku sa ndey liggéey ku la gis xam ko saab sëriñ gërëm na ma jër la wax ku sab sëriñ gërëm ku la gis xam ko liggéeyu ndey marchandise la ku réglé perte sa yaay ko lekk lu la waaye rawee tamit liggéeyu ndey bu ko jéematee jot wees na borom yaay ju baax ko rawul bu muy gàcce yow ci sa bopp korom borom ndey ju baax talaatam gàcce dina ko tiim waaye du ko dal ndax njàmbaar su doon mayee wërsëg réew moo dem làppatoo yaa koy ëppale waaye foo dajeg ponkal mu yenu saako ceeb soo ko ñimee ne ko ana borom ki ko jënd du ko yenu jàmbaar ji ndey jël géeyul nag ji koy golab kër lay yor golab kër dañuy daaju gétt ci diggante bi yeew ko ci ndigg li mu dëkk yóotu te du jote mukk jàmbaar ju ndey jël géeyul du tàggu ku laxasaay bu dégg bëccëg waaye bu jaaxlee ki dul tàggu mu koy dimbali ndax liggéeyu ndey mbind mu ñu yaxal la doomay gontu maas ko ku jàkkaarloog baat ba xam ko ngërëmal way jur gàllaaj gudul toj la yàlla ku mu nëru tafay du la liggéey kon ku baax wéttaliku ku yaru falu ku réew réer ku réy ñàkk ña gën bakkan mbaam waaye ku ko taa wàcc mu la ku jàpp sa ruu jënde ko addinay kese bu la sukkuraat nu yoo perte ku def sa bakkan yilimaan mu tàbbale ci jàkka joo bëggul woon a jullee kon ñu baax suñu yeboo juboo ñu bon leen bëgg gàcceeg penc nag yett a koy yóbbe as gor waxtaana ko dof te déggal ko ak diisoo kuy war ak lépp alali jàmbur foyee ko ndax yett yokkul yett waaye fu yett yàqoo yett fekke na ko alal yokkulu bokk waaye fu bokk yàqoo alal fekke na ko ay war yokkulu ànd waaye fu ànd yàqooy war fekke na ko kon ngor tool la ku ngor lu tool ak sa tool toogal bu lu ngooti la ko génne lànkal ci toolub jàmbur la lay jëme te boo xisee dugg ci toolu jàmbur te neexul boroom werante lay indi te werante jëf ju ñaaw lay taawloo jëf ju ñaaw day yàqu bokk di yàqu ànd te it dañ ne ku iñaane say dono saw deewin ñaaw waaye ko iñaane say dono sa mujjee ñaaw ndax sekkare ako sekk ak baatin ci néegub xam ba ca la ñuy dëkk baatin yàlla bu ko xisee dugal ci dënn ba kaste ko ca fit wa ko war a may nettali ko yàlla du ko ca boole baatin soo ko nëbbee mu feeñal la waaye soo ko weeree mu nëbb la kon àddina damay wax ni àddina dafa laaj yett te yett yooyu lenn lu ci nekk luñ luñ ci jéemul lenn kanam la jëm ñàkk gu boroom nu ngi wut liggéey kanam la jëm jàngoro ju borom nanguwul a faj kanam la jëm ñàkk xam te nanguwul a laaj kanam la jëm as yi ci dina yaari asa ci am solo jeneen as ju amul solo as tafur la as gor as ndox feeñal na sobe waaye sétalu ko as xam-xam bu borom toogul noppiwul dina feeñal xamadeem te du ko foog werante bu tàbbee ci pénc ñeent ko fa indi ku ñu yarul jàngaluñu ko kiñ jàngal te yareesu ko boroom xam-xam bu yàlla feeñalul tam bëgg a feeñ ak ku yaroo ci daara ju amul daa daara ju amul daa mënees na caa génnaale ay pexe waaye kenn du ca génn gi willaayam kon jaamu yàlla ak nu nga liggéey ku def sa bopp ku bàyyi sa bopp àjjana ak tiraanga ku la ni yomb na dala koo bëgg a xañ wërsëg ak xam-xam akum xel loo ci yóbbu fu ñu koy nawee boo ñàkkee fayda duutu yokk wërsëg ak xam-xam akum xel loo ci ëpp fis say bokk te doo leen ci dimbali su bokk ga yàqoo yaa ko jiite kon wërsëg jërul du mooy say bokk ndax tudd nañ ci sëg ba noppi bar sàq tuddul bar sàq ber sam sàq la kenn ku nekk da yegg xit sam sàq yor sa loxo loo ca fekk yaa ko liggéey juboo ba juboo jeexit jubóog si jëf ju baax a ci gën keneen koo mën a jubal bu ñu la dugalee ci bàmmeel ba suul la day ñibbi këram toog waaye boo jubóog sa jëf fu ñu la tëral mu tëdd fa. te dama ne àddina lu la ci xañ jàmm ba teelaa nelaw armeel yoroom bu ko la ko ëpp ëppalee nga ci ndax damay wax ni jongama ko mu tax a ñaaw ci kaw suuf loo yàgg-yàgg ci kaw suuf di nga dee jongama roote ñu sangee la ko dees na la suul ba mu amee at jongama judd sa ginnaaw kon jëru ko alali àddina ku mu tax a ñaaw danga dem ba hôpital fekk fa boroomi carte grise ak i étage ñu jox ko diggi kaasi naan ko tëkku kon jëru ko boroom wërsëg wuy fan ak ñett lay àndal jongama ju amul kilifa texit mënu ngi wutal liggéey doomi sëriñ ju xamul boppam ko yaara koy delloo ci bokkam jeexal ak wopp moo tax ñett war nañoo mooy ñett jongama ju nekk cib dëkk fasul yéeneen am jëkkër te lu xew mu bëgg caa jëkk am ku am lislaam war laa mayu borom wërsëg bu nekk cib dëkk te du dimbali kenn ku des gor war laa mayu koo xam ne askanu nga bokk kenn mus caa moomu dëkk bu ñu la defee buur kuy baadoo war laa mayu ndax jongamaa ku dàlla yem jàppal la ma lay fajal waaye bul bi ñi te bari na ku dóorul àddina te danga yurul yet wa te nit kenn ku nekk la lay kontar kam ci yow sunu kër gee ka neex ku ñu ngàbbalu kon la ma koy wax foo fekk kuy xeebub dépasse koo sàkkul te damay wax ni dara jàkku loos bu doon mayem manto kon gëléem du tëdd biti te ngoro ñeent la kër ñeent jeeg a fay wàcc doom ñett la ngoro sa mbokkum ndey wala sa mbokkum bàyyi wala dëkk ji yàgg ju la jikkoom neex mbaa ku ay bokkam nga të say bokk loo ca fekk bokk ca loo ca dal nga muñ kërit ñeenti jeega cay wàcc jabari tool jabar yi jilo jabari seetu jabar yi sën jigéen bu yore ji koy tool tool bu yaatoo te nangu borom du fa gëj te bu ñëwee kontaan mooy jeeg bi nga yor ci kër gi di aw fi ko neex muy aw fi la neex su awatul fi ko neex du aw fi la neex kooku njaboot gu jigéen la ko yàllay jox bu ñuy siyi ba caat ma des ca ma topp ca xel ma du nekk fi caat mi nekkan xel ma du ne fa mu doon siyee ndax da doon fayantoo dong jigéen bu yoree ji koy seet lu mu yàgg-yàgg ci kër dinaa cay seen kër gi ndax moom day seet si rek te ku yàgg seet gis te bay gis di dem jigéen bu yoree ji koy sën sën du tukki te loo ko saf mu nangu la mu yàgg-yàgg ci kër moo koy mujje mbaa dooma ma koy mujje moo tax may wax ni jigéen ju baax boo ko takkee ba andi ko sa kër la mu la ameel la lay jëkka sàmmal ba kenn du ca dem ku dul yow mu door laa sàmmal la nga xam door laa sàmmal sa buntu kër ba say ba say xarit ak say bokk a ñëw sa kër waaye jigéen ju bon say xarit la lay jëkk a xañ ba ñu bàyyi la mu door laa xañ say bokk door a wëlbatiku nag gemb dajeeg yow moo tax grand place boo dem ci dëkk ka fa yées jabar moo fay jëkk moo fay mujj tarambaaj bu politique am toj ak pànk mu ñu jekku ak dof bu tane ñoo yem nañuy xoole dof du wér rab yaay jël conseil waaye dof du wér loo man man faj dof bàyyi ca na muy xoole kon doomu aadama joo seen muy dem ñetti raxasoo ngi ci moom yoo xam ne bu ci sam xel jógul doo toog fenn naa may waaja nit ki li ko sos li ci bët mën a gis fu mu la laal nga raxas ko nit ki fi mu daanoo di ab liir loxo bu ko jëkka laal raxasu nit ki bi ruugi demee ba saq bàyyi fi jëmm ji ku ko laal raxasu ñett raxasu yooyu ku ci sam xel jógul doo toog fenn naa mooy waaja te ku ñu ne mat nga dañu lay jay ku daray metti matoo yàlla moo bind mat te yéen ko joxu ko kenn ku daray metti matoo te koo yaakaar ku ne yettam wump na ko guddi ga ma sosoo wump na ko ni aw yaramam di màgge wump na ko piis ba mu sol machine ba ko ràbb wump na ko kon àjjana ak tiraanga ku la ni yomb na dala ko bëgg xañ te lislaam am na ñeenti góom yu kenn fajagul kay moqar ci po ni ko wëllum seex tani ko ci lislaam bi laa bokk kay naan sàngara ba màndi daanu ca mbedd ya tañ ni ko ci lislaam bi nga bokk ak ci dul julli du woor du natt asaka du natt muurum koor tañ ni ko ci lislaam bi nga bokk ak këlin lëng direeta naan leen noo bokk tariixa ñeenti góom yooyu kenn fajagu ko kon cari garab war na ñaanal taatu garab jàmm ndax leew matt bu ko see dugg ci waañ su yeboo muy maslaakub dóomu ndax sayu matt bu xamoon fa mujj bu rombeeb seen sukkal ko kon ki juddoo ci dëkk dem ba yub làmb te xamoo kuy sa baay xeebu sant waru la askan woo dem góor guñ la ni moo ca dàq fecc boo amee soxla bul ku ko wax booy dénkaane teggi ko ndax jigéen ñetti doom lay jur doomi bopp lal doomi digg lal doomi taatu per doomi bopp lal baayam day làmm ndeyam daj ko li mu ko sant mu nungu bu ca doom sosoo dutu tàggu tiraanga doomi digg lal baay beeg ndey ji dañuy bëri ba ci digg lal bi baayam ëpp doole ndeyam bu ca doom sosoo bu nungoo liggéey am bu nunguuta liggéey doom dara doomi taatu per baay beeg ndey ji dañuy bari ba ca taatu per ma baayam ëpp doole ndeyam sës ko ca per ma bu ca doom sosoo bu juddoo per bu xar lay doon lu ko fecc mayul du ko am su màggatee rangoy mbus yelwaani kon ak jéelu mbaan soo déggee mu naa njool mu ndaw mi nii nga dikke wax na dëgg noonu la dikke fenul la ndey ja nekk woon ak baay ba lay nettali te yëgu ko ndax ñi koy tàccu ñépp nawleem lañu waaye nag moo war a fecc ndax ndeyam a ko liggéey moo tax mu naa njool mu ndaw mi nii nga dikke wax na dëgg noonu la digge te askan woo dem góor goo dégg ñu ne mooy ca dàq fecc boo amee soxla bul ko ko wax booy dénkaane tegg ko kon damay wax ni Ousmane Ba gor si dog bu muy gàcce te du ko wax kër goo tàbbi am suuf siis te jikko yi ñaaw yépp soxor ak ki ci gor gën a gore soxor ak kiñaan jikko yu ñaaw yépp moo ci gën a gore ñoom bala ñoo fàdd ka jëm ci moom ba te ñu daaneele ki leen ëmb ci yéeneem ndax yéene yett la yéene jigéen juy sii ak jëkkëram wanaasu la ci biiram lay dellu yéene kilifa gu dëng aw tund la dese yéeg daanu ca xurwa tund wa jatt ko moo ku ko déggal yéene taalu bi ak sëriñam te sëriñ ba matub sëriñ jooja yéene néeg la borom a cay fanaan kilifa it ñetti kilifa am kilifa gu yor ji koy gaynde ak kilifa gu yor ji koy golo ak kilifa goo xam ne dafa yor ji koy mbëtt kilifa gu yor ji koy mbëtt soo jiitoo mën yaa ngi lekk saay soccet nga topp ginnaaw mu yaa ngi joggi saab geen nga dend ak moom muy danga maa def moroom kooku ki ko miin ak ki ko munta ba dong la mën a nekkal kilifa gu yor ci koy golab day ànd ak yow bu siinee njariñ dëgmal la mu gàttandu ko ni ko cas lekk mbaa dencal ko boppam kilifa gu ci koy gaynde nag mooy gëggën kilifa gu yor ci koy gaynde kooku day ànd ak yow soxla dëgmal la mu gàttandu ko tëgg koom jiin ñu gumm moo tax ñetti àndandoo ngi it yu mata moyu àndandoo bu yor koy golo àndandoo bu yor koy max àndandoo bu yor koy takk ndeer àndandoo bu yor koy max day ànd ak yow booy senc mu ànd ak yow waaye loo teg fi suuf tadug weñ walaw xeer da koy maxe ba naaj tàngee mu rocc ko bala fa boobu àndandoo mat naa ma yiw àndandoo bi ci des ji koy gola lay yor boo àndee moom ba tàbbi sa biirub tool mu tànn garab ba ca sut yéeg ca sikkim la soo wàccee ba ñibbi mu ànd ak gàdd ga tàbbi ci sa biirub tool loo yaakaaran mu faagaagal ko àndandoo bi ci des ji koy takk ndeer lay yor booy xuloo foo taxaw mu taxaw fa boo xàccee mu mépp buñ la yenoo ba ca kaw mu xaar la fa suuf buñ la daaneelee ngeen ànd xalangu àndandoo bu yor di koy takk ndeer kon ñett lu ci waay am récc ko wutalu ko boppam dañ ko ko wutal jabar ak xarit akub sëriñ lu ci waaye am récc ko wutalu ko boppam dañ ko wutal kon njëlbeenu kër yow mi boroom kër gi yaa war a jëkk a jub jubbanti sa njaboot teg leen ci yoonu lislaam di ko jëfe ñu di ko gis nga fexe ba ñi nga jabooti ruus la tabañ bañ laa ragal sa njël di doy te nga bañ koo tiitaroo foo jaram koo yónni boo dee góor ba sa jabar xam ko nga amub dund amum kodd amum niir jël baat ricc ricc digg ëtt bi fas yéene dëkkeeb gent ku nar a dëkk ak yow loo xam ba ko ca fase sab aawa génne sab taaw nag barki nuyu na la waaye fayoo ko ku am benn jabar sàggane ko di nga xaaraani sam nawle te di nga yóbbante sam fóot góor nag boo xisee am ñett taaw ñu bokkul ndey suñu màggee sag tumuranke jeex te it aawo ay ayloo ak fégal dañoo wuti aawook jëkk sëy it du benn ay ayloo da ngay aaya tey boo lëggee sa moroom aaya ay ayloo fégal da am màgg dangay ngay cëppeelu ci kër nekk fay sëy jur fa doom ju góor màgg takku tekki dem takk jabar indi aw sa yaay ca waañ wa aw sa yaay ca póot ma aw sa yaay ca mbale ma aw sa yaay ci coono jigéen yépp sa mbàndum yaay di fees te sa yaay du xam fu ñuy roote sa yére yaay di set te sa yaay du xam fu ñuy fóote bu waxtu lekk jotee sa yaay day seet këll ba ko jubu bi yor ca loxoom su boobaa sa yaay day muur yor kurusam di julli rek su boobaa fégal na ku fégal dootoo aaye jigéen it balaa sii na seddale yett door a dem ab na ko bàyyi rakkam ju jigéen jiy jaayu te jëragul waaye bu mu dem di ko tiitaroo fa jëkkëram alalam na ko bàyyi càmmiñam mu yore ko boppam waaye bu mu dem di ko tiitaroo fa jëkkëram ab juddoom na ko bàyyi ak bàyyam mu di ko damoo waaye bu mu dem di ko tiitaroo fa jëkkëram bu demee bay sëyi nar a jub lu ko waay di digal te di ko nëbb jëkkëram na lànk ndax ku sa gor a gërëmul sa jëkkër gërëmul a keneen ku la gërëm daa sob moo tax ma ne yekkale yekkale ba ci sëfoor si duggee la ci jeeg ji génn léegi sëfoor si ñoo yekkalente ay kiliyaan jeeg ji téye seen loxo yekkale ma ne ba ci sëfoor si duggee la ci jeeg ji génne seen loxo ma wax ni jigéen it buy sëy te nar a jub lu ko waaye di digal te di ko ñëpp jëkkëram na lànk bu sa jëkkër fiiree bul bëree góor gu ko doyul bu sab goro siisee bala ngaa yekk leen a regg boo dëkkee kum nay lu mu am danga koy baag moom te loo am jox ko ca ndax ànd bu nekk tabla la la am ku yegg gaare te am doom ju ndaw ju rafet ci bët neex na ci xolub jeex waaye doom ju màggat a tekkee ko gën ndax kër baay gétt la waaye kenn ku nekk la sa yarat ngay naan ndax damay wax ni bu doon koo bokkal mu yéene la jàmm kon gi taxu suuna du xam sangal te ku say bokk xam fa nga jëm doo àgg te bu ñu xamul fa nga jëmit xas la ndax jën di ko indi marché bañ di ko séddoo jën ni moom a ko koy yóbbee jën lañu def meep sànni ko biir géej jën seen ko teg ko jàmm lokk ko ñu xëcc ko ci weñ indi ko ca tefes ga gàll ko ci oto indi ko marché dagg ko séddoo te géej kenn képp fa fekk baax keneen ku mu yaa fekki tefes tefes kenn fa fekk baax muy jinkoob caxalaan yi dong ñoo fa fekk baax ci tefes ga keneen ku mu yaa fekki tefes waaye tefes fekki wula te it damay wax ni ñett bu ñu tàbbi ci kër nañu leen weer abra mbaaj su tàbbee ci kër nañu ko weer ay yére suñu ko fóotee tàbbal ko ci kër nañu ko weer soxla boo ko mënta faj daaneel ko ci kanamu ñu nga bokkal gàcce weer ko kenn ku ne yëkkati def ca mu faju ñett yooyu dañ leen di weer kon ngénte daa am ngéntew am génn teen am ngénte borom da koy man lu jiitu bis ba ku ñëw mu ngénte ku ñëwul mu ngénte ngéen teew say bokk ak say am ji jàmm dañuy teew kenn ku ne yëkkati jox la nga door a mën a ngénte bu ñu teewul dara du dox ngeen teew génn teen doo defal kenn lu ko jaral jóg te doo mënal sa bopp dara soo génnee ci gàcce nga yem génn teen kon dëkk boo yendu ñulug bu nekk nga yër ko xorom doo nga ko mën fekkee déwén tamuy jàmm dëkk yaramu neen di wërum réew te ndaje moo dem ñuy wax sa taar ca toppandoo naaru góor juum te damay wax ni tàbbi cim réew am ca sa waaye bopp baax na waaye soo jubóog boroom réew ma lay gën tàbbi cib dëkk am ca sa waaye bopp baax na waaye soo jubóog boroom dëkk ba lay gën tàbbi ci kër am ca sa waaye bopp baax na waaye soo jubóog boroom kër ga lay gën kon dinaa di waxit ni rajo ku ñu ko teg ci sab loxo tax ngay rajaxu di nga yàgg a tàbbi fu ñu la safoowul te nga am fa yitte te la tax nga soof nit ñi yaa ko wax ca rajo ba te yëgoo ko kon damay wax toujours ni nit bu lay xas bala nga koo tontu seetal ba xam kii lay xas yow bëgg ngaa mel ni moomam déet soo bëggut a mel ni moom lu mu la wax ci moom la nekk waaye nekkul ci yow ndax seytaane lu ñu ko woyee lu ne ñàkk mu ñu ko fa dugal bari na saay saay bu am fayda tàbbi ci biir kër def ak caay caay ba ñu yeew ko ca pénc ma te ñàkk fayda ak koy yóbbee moo tax yeefus bu bëgg tiraanga bu dee nootoo kërug sëriñam da cay diig ndax tiraanga ji mu fekk ci kër sëriñ bi ak sutura ci lay ñuy ne kër gi ba far fi toog sëriñ bi seet jigéen ji koy dawat de kër takkal ko ubbi mu néeg dugal ko ca bu mu ràpp sëriñ bi solal la ma neen liir bu juddu sëriñ bi ngénte lu ñu yalwaan jënd koy laltoo ki ngeganaay jaaxaan deen yaa ngi ci barke te loo yàgg-yàgg ci kër sëriñ bi amagoo sa këru bopp te sa doom du am kër bàyyi kon ñaq jariñu fa ko nit ñi teg néewu fa fa ko yàlla teg la ne ñaq jariñu bu doon nekk ci tool sëriñ si waageer waagar yi doo ngay ñaq jariñu toolu sëriñ boo dem di nga fekk ay doomam gembu teyit àddina lu doy dikku fi doy loo la nga ma fi ñëw baax ñëw na fi waaye baax ku àndul nag ñu di la xas dikkul dund ñëw na fi waaye dund gu àndul ak dee dikkul kenn ku nekk bi nga juddoo indaale sa ruu la la àddina kalaameeg dee moo tax may wax nit ku nekk ñetti raxasoo ngi yoo xam ne bu ci sam xel jógul doo toog fenn naa may waaja ma ni nit ki li ko sos li ci bët mën a gis fu mu la laal nga raxas ko nit ki bi mu daanoo di ab liir loxo bu ko jëkka laal raxasu nit ki bu roogi demee bar sàq bàyyi fi jëmm ji ku ko laal raxasu ñett raxasu nit ki mu daanoo ab liir loxo bu ko jëkka laal raxasu nit ki bu roogi demee bar sàq bàyyi fi jëmm ji ko laal raxasu ñett yooyu ku ci sam xel dugul doo toog fenn naa maay waaja kon yàkkamtee ami mool jarul di dugg ci njeexum ba say bokk di la moolu ndax prix yoram ba ci mbedd ay mbir a ko fa ba ki kenn du ko laajte mu ngàbb ab xaalisam di ko joxe ngir bëgg a jël ndamal ndaje ma ab tab aw làmmiñam lay jëkk xam fu mu ko war a tàbbal ab tab day xam fa muy tàbbal ab tànkam door a xam fa muy tàbbal alalam ab tab damay xam fa muy tàbbal alalam ndax ku wóppul ñàkkoo xamagoo say bañ kon bu waaye di kenn ne dama la bëgg bala ngaa ànd ak moom ca la mu wax seetal ba xam ña mu àndalan daaw nu mu leen def ndax yetu noon du réer borom da koy denc saa yu ko talee jëli ko ngembal saay saay du tax borom da koy yolomal saa yu ko talee fiddali tubayu ku la bañ saa ko yéen saa yoo ko ci sa taatu xarit moyul xarit ba lam wax ba jot te sab der rafetu ko kon ñi baax suñu yeboo juboo ñi bon leen bëgg tey doomu aadama joo gis muy dem loo yàgg-yàgg ci àddina di nga yàgg ci biir suuf lu ko ëpp kon juboo ba juboo jeex jubóog sa jëf ju baax a ci gën keneen koo mën a jubool bañ dugal la ci bàmmeel kooka day ñibbi këram toog waaye boo jubóog sa jëf fuñ la tëral mu tëdd fa moo tax doomi soxna yépp soxnañ leen te dëgg ba noppi kon ku ñu sox war ngaa fital te jamono yegg na foo xam ni bari na ku ñuy sukkal di la raamal te ku la sëgg kaw suuf nungu nag njublang nungu na waane waaye péncum yàlla dëgg a fay dàgg ko fa amul doo bojj dafa yaar yàqoo bu ñett waatee lakk waag bokk yàqoo wala xarit yàqu su jigéen waatee lakk mbaabu xaalis waatee lakk mbaabu ab tool waatee lakk ndax yett yokkul yett waaye fu yett yàqoo yett fekke na ko alal yokkuluk bokk waaye fu bokk yàqoo alal fekke na ko ay war yokkuluk ànd waaye fu ànd yàqoo yi war fekke na ko jigéen yàqu lislaam waaye fu lislaam yàqoo jigéen fekke na ko te damay wax ni àddina lenn képp la fi doomi aadama yi dul xëccoon leneen lu mu boo ca dugalee sa loxo ñu jàpp ca asamaan te dañ caa jotiwul moo xamal mu di la sant seen dina la fay du gaaw koo xam ne boo amee ci soxla duut la may jàmm bu soxlaam fajoo nga gëj koo gis ngërëm bu dee bàyyi koo ci poos boo jeexalee ñu won la ginnaaw ànd bu ko joxe sosee boo téyee sa loxo mu yàqu bala nga ànd ak nit na nga wisit jikko ja ba mu doy la nga door a ànd ak moom ndax ndajem waaye jëm sañul yóbbu taar waaye taar amul wëllëre taar soo woppee mu dellu ginnaaw ab taar soo meree mu dellu ginnaaw soo xiifee mu dellu ginnaaw am ñaawaay nag loo gën a gudd fan muy yokk kon taar amul wëllëre te doomu aadama yaare ci dul màggat jikkoo aku fit jikkoo ku fit doo nga dul màggat ci nit foo fekk mag muy defuk caay caay jàngu ko da koy tari ba mu ko mokkalee yàgg na mag du jànguk caay caay te ñett dañuy daagu dugg waaye kenn ku neew xel ngay génne buur bu ñu fulli buur fal ko buy tàbbi ci kër gi ñu fullee woon morom mi ndaag lay dugge ànd ak sar xoolee ki tàccu ak i dënd waaye bu yeggee fa ñu fullee woon morom ma aw xel lay génne ndax après joo dégg biraawo nga koy daq te dina ko jot jigéen ju liggéey kër boppam ba mu yegg ngay góor romb ko sa col gu jekk mu joxe ñeent ak transit na wékk naa la saak buum fanaan mu jëkk mi ndax ngay duggee waaye ci bu ngeen sàppentee aw xel ngay génne jinax yi julli ju ànd ak jabaram buy tàbbi ci sébbu gerte bu lay yi ndaag lay duggee waaye su mbooyaa ba ñu bàcc ko ba tur des ca nag aw xel lay génne te damay wax su ni leen nit ki bala ngaa xam jikkoom na la teglu war nga mën ko ba noppi lànk ni tekk di ko seet bu la alal booleeg moom dinga ko gëj a gis mbaa boo ko nuyoo xam ko ci may waxit ni ñeent duñu bokk fanaan ci kër oto bu màggat jeeg bu siis xol bu sedd xel mu dal duñu bokk fanaan ci kër oto bu màggat boo ko jëndee weer bu jëkk wi dala naan lu ma am ak loo am booleel lekk weer wa ca tegu mi la loo am lekkal mayit lu ma am lekk weer wa ca tegu mi la loo am ak lu ma am booleel jox ma ma lekk ba ca tegu muñ la ñu la dénkan ak loo am ak lu ma am booleel jox ma ma lekk ba ca tegu buy fanaan si ci kër gi dana tay lumière yi néeg bu nekk mu jafal cab lumière ni bee néeg lu ca neen génn bee néeg lu ca neen génn ba néeg yépp daj mu door ni gafuñ ca ëtt ba boo xëyeeg suba la ngaa génn kër gi da nga dajale mbooloo ñu bokk puus mu faraxal ba ñëpp yëg ko mu door a teddi juróomi kilomètres yi mu daw ñu ubbituñum kaw ma su boobaa ma ngay tas kër ga muy xëyee jigéen ñeenti sikki laam góor ñeenti sikki laam ñeenti sikki góor mooy soxor ñeenti sikki ñeenti sikki jigéen soxor siis bañ gan bëgg ne la bu mu ëpp mooy sikkas jigéen ñeenti sikki góor mooy xaste ak dóor ak fiir ba mu ëpp ak ragal njël sikki góor yépp mu ngi laxasu ci ragal sikki jigéen yépp mu ngi laxas ci ki reewande jigéen bu reewee lu ñu ko jiñ mooma moo tax dama ne jigéen su ëmbee rek war naa xam doom ji mu ëmb bu juddoo nu muy mel naa jigéen su ëmbee doom ju baax koñ bu mu nekk ndawal gu ca sotti tamu gisoon ko daañu yekk wàllam yët ko su boobaa doom jàngay ëmb wërsëg ci biiru ndeyam waaye jigéen su ëmbee doom ju bon ëtt bu mu dijju dañu ko fay romb këdd ko ci taar ni ko jógal taxane mbaa nga rooti biir du pal moo tax sii boo gis ci jigéen tirbinaaram la waaye doom yi ciy juddoo nag suñu màggee ñoo koy siisee ndax barke bu ko bàyyi doon am di ko te di ko joxe ki mu gën a nam ndeyam la koy jox ndax yaar bu xisee dëgg ma doomu aadama bi def mënu koo faj wërsëg akum reefam kenn mënu koo faj moo tax ñett kenn du ci jëlee ndam yafalu màggat faj ko reep suuxat mboob kenn du ci jëlee ndam ma ne gaañu sëriñub tariyaax la mu njëkk ne tari baax na waaye nag da ko fa ne yaax tariyaax la mu njëkk ne tari baax na waaye da ko fa ne yaax ni meng ba yàgg mu ñëw ni jalañ indaale ay laar ak i béjjën ak sunguf su amulub gàpp ci moom daa di fab ab taatam nag ni ko tegg yi fab kanamam dëpp ko waa àddina lu ko waay tawat mu ni maa ci rus lu ko waay wax rek mu ni maa sut ci loolu ndax ak weexal boo ca takkee soxna samp ca kër di ca joxe dépasse di ca sol mbubb di waxu dëgg amul ndax kër gi bu fi dépasse fanaanul nga xëy suba teel jarag ne fi jalañ luy tax mu joxe weexal rek loolu lañuy wax moo tax sëriñ su muus yi taalibe yu muus yi la ñuy meebe yu dof yi soo muusee te amoo dara sëriñ bi dalay lay teg fi wetam ku ko doy mu yónni la soo muusee te amul xaalis day tànn saal yam yi ci gën a neex dugal la ci lu jëkk sotti ci kër gi mu tànn la ca dàq jox la yow mi musta am nga lekk ba regg des wi ñu fab ko jox ko ki musta amul dara moo tax jërëjëfe sëriñ bi ñu nekk ci jàmm doo nga koy wax waaye jaaxle ko métit ci yàlla rek te ambulong bu woom kenn du ko tippee ci mbooloo Sénégal nag damay ñetti giire sëriñ fi am tey ma dib sëriñ farsu nga xëy ma dib sëriñ saa yu jógee tukki saak ba mu ŋàbb sungu fekki reen doo nga cee ne moom bu kër gu mu dëkk jëkk a dugub jaaxle la fay fekk fi mu tàndale woon mu jub kookaay doon ab rawaanam mooy dee dem ca ña ko la ko dalan ca ñamu dal kenn ku nekk muy la dikkal sans sëriñ ba ñëw na fi tey ma dib sëriñ force nga dib sëriñ ab sëriñ ma koy jur force nga dib sëriñ ab sëriñ a koy jur waaye bi mu xàmmee nag la jub la mujj a jëfe nag ndigalal waajur ya ni meng bi bàyyi bi dee nag ñu jëli ko gi siis bi ñu tegan bàyyam ñu teg ko ci ñu yaakaaran bàyyam kenn ku ne dégg koy loxo ni ginnaaw sa bàyyi jóge na fi yaa fi sës moom lislaam ba bàyyam yoroon da koy soppi nguur dañ ko forcé waaye dub sëriñ su yàggee nag feralum ginaar lañ koy def ginaar buy feral cuuj ya gën a am fayda lay woŋ ñu fekki cuuj a ñàkk fayda kaas ma beru bàyyi seen ndey ab force nga dib sëriñ it buy ñàkki taalibe taalibe yi gën a am fayda ñooy dem ba xam jikkoom bàyyi ko wax ko ci ko ab sëriñ jàng lay jëkke teg ca xam-xam boole ca xàmmee la yàllay digle mu di ko digle te di ko def la yàllay tere mu di ko tere taba ah, xam nga jamono daa dikkan mag ñi fekk fi taara ba ko jamono dikkaat boroom barke yi daq ko ñoddi taataar ma boroom barke yaa ngi sóobu ci jigéen ñi di ci takk lu leen soob te kenn waxu ci dara dëkk bu daanoo ci pénc nag may mag ñi xëy ci suba di ko wër ba jant bi sa te feeñul borom barke juum dañu ko ragal teyit ci lay sukkal di la raamal bu wëlbatikoo di la sikk la ko doon tere yaa ko def ba mu yem ca kon loo bëgg mucc ci ciw ayam dawal jàmm ja ndax doom su gàddaayee bàyyam ànd ak ndeyam dëkk bu mu jëm dana ko jub waaye du ca àgg kon an la ngoo matale xarit la waaye koo bàyyi mu wéy taggatémbe caaxaan la ko bàyyi garab garab bala te boroom kër bu nekk juróomi cëre ngi ci yow cër bu nekk borom a ngi koy xaar te dina ca jot borom kër bu ne sa malaakaa ngi xaar sa ca jot sa bàmmeel a ngi xaar sa jëmm te dina ca jot ay sax a ngi xaar sa yaram te daañu ko lekk say doom a ngi xaar sa desu alal te daañu ca jot ñu am cër ca jeeg ja ngay denc ñu ngi toog di ko xaar te daañu ca jot alal su mag ga gaawee juddu ba rafetul alal ju nag ji koy ganu dof lay yor suy ñëw du tàggoo suy dem du tàggoo kolori baa ji koy gumu mboq lay yor bu rafetee dañu koy futti lakk bu ñaawet dañu koy futti lakk jërte ñeewee kenn teyit bàmmeel tuddul bàmmeel baal na nga meloon la teyit nit ki judduma sa juróom la nit du ko wax nit te yàlla tax duma sa moroom juróom la nit du ko wax nit te yàlla tax duma sa moroom ndax maa la ëpp ay at kon yàlla taxul duma sa moroom ndax maa la ëpp xam-xam kon yàlla taxul duma sa moroom ndax maa la ëpp wërsëg kon yàlla taxul duma sa morom ndax maa la gënu juddu kon yàlla taxul duma sa morom ndax maa la ëpp pexe kon yàlla taxul juróomi duma sa morom yooyu am bu la nit ne duma sa morom rek amal soxla ci sa bopp ci boppam la ne te ki nga ak ci fekk ko mu toog ndax damay wax ni ñeenti mbàkke mbàkke ñoo am ci jamono ci nit ñi foogañu koo gis mu ànd moom dong jox la ñaari loxo ci mbedd mbaam pénc ni la mbakke laa sant kooku du Balla Aysa Balla Isi la Balla Aysa da nga fekk mbooloo wër ko du ni kenn mbakke laa sant yow yooy fekk mbooloo wër ko yaa naan siiw àgg ca moom ba jox ko ñaari loxo ni ko naam mbakke waaye moom du ni kenn mbakke laa sant Balla Aysa ma ni Tuubaa mbakke la fa baax ba doomu aadama yépp di fa dem hmm? nga xam ne sëriñ Tuubaa ko fa indi loola loola balla ma ca ngaye ko fa indi waaye Tuubaa Mbàkke la fa dëng ba sëriñ Abdou Lahat bëgg mu génn Tuubaa hmm? balla ya ca ngoyee ko fa indi balla aysa balla isi balla ma ca ngay balla ya ca kon nag ma ne Sénégal pénc moo fi waxtaane ba jóge fa te tuddoo fa Serigne Touba fa accident tàbbee ni jiñ la ko te Serigne Touba ku mu raw ci juróom la la rawee buntu néegam buntu kurusam buntu jàkka ja buntu tool ya buntu téere ya fa mu duggee gaal ga ñu ngay ndawalu fa gaal ga téere ndawal gaa nga fe te ñu koy dundal yokkuñu ko ña tant ca àll ba di wut lu ñu dundee ca lislaam lu yëngal lislaam ñooma ak bokk ña koy dundal yàquñu ko ña tàbbi ca biir bokk ga di wut lu ñu dundee ca bokk ga lu yëngal bokk ga ñooma te nit ku nekk damay wax ni bët dana dugg fu mu amul soxla kenn soxlawu ko fa waaye gis a ko waral la mu gis bëgg koo gis kam ko gisee ci moom it ba sa ñan ko gis waaye gisa ko waral nopp dina dugg fu mu soxla kenn soxlawu ko fa waaye dégg ko waral la mu dégg bëgg koo dégg comme ko déggee ci moom it ba sa ñan du ko dégg waaye dégg ko waral may wax ni bii jamono it ñetti bopp fi gën a wubbu bopp bi nga xam ni bët ba ca nekk bëggut a séen lu naqar yàlla nopp ba ca sax bëggut a dégg lu naqar yàlla kooka bopp wubbu na ak ki am njaboot gu jigéen ba ñu mat am jëkkër te amaguñu ko te ngay bañ gàcce kooka bopp mu bu ak jigéen ji tàmm sëy te amatul jëkkër tey bañ a njaaloo kooka bopp mu bu ndax dama ni koo ñett la tag koo sëriñam dafa faatu mu di as gor di nit ku yiw sëriñam bàyyi kër ak gone yu ndaw yu màggagul mu seet ca biir bokk ga wala gor su ko doy mu takkoog moom mu sàmmale ko alal ja ba kere doom yooyu màgg loolu lay doyab takkoo bii takkoo yàlla dafa dogal muy jigéen joo xam ne jii moom itam daa dafa dem bay mag sëriñam faatu mu tànn as gor dib jullit def ko mu dib takkoo muy ñëw ca kër ga mu di ca jaamu yàlla bii takkoo day jigéen joo xam ne dafa am alali boppam tabax këru boppam te koñ ba mu tabaxee kër ga nag mu am fa nag mu faru ndëkkaale bu muy bañ a sori mu wut ab takkoo takkoo bay ñëw ca kër ga mu dëkk ku faram takkoo bay ñëw ca kër ga may waxit ni takkoo ngoro góodul ak ngoro góodul àggali la jabari takkoo ngoro góodul àggali la moog lekk laaxu soow lu ca yàggu góor gaa moo tax ma ne jabari caga ak yàpp wu fanaan tey jaay lu ca jafe kay jënd a gaawtu njaayum cag ak yàpp wu fanaan muy jaay lu ci jafe kiy jënd a gaawtu ndax damay wax ni juróom la nit dul àbb du ko able juróom sa jikko sa kawar sa mbokk sa takk ndeer sa ruux foo jëm yóbbu ko saga boo gis digal nañu ko la baax bu muy sëyi waaye jikko jaa ko delloo si jikko tuddul jikko jikko la tudd kenn ku nekk sam xel mooy sam ceebo kala yar la mu topp bi jikko ca bu saxee mooy doon sa jikko ñu ni jikko doomu aadama joo gis it cër mooy sa village waaye sab xol mooy sa chef de village bu xol xisee gàntu foo yebal cër mu gàntu bu xol xisee sawar foo yebal ci mu sawar kenn ku nekk sam xel mooy sa postu pexe postu pexe doomu aadama yépp ma nga ca xel ma xel mooy postu pexem nit kenn ku nekk nag sa soxlay bopp nag cin la koy ñuluk say soxlaa koy ñuluk waaye ko ëmb moo di sam xel moo tax kenn ku nekk sam xel mooy sa postu pexe nit ku nekk itam bari na koo dégg mu naa sama yëf caaxaan yóbbu ko te la mu njëkk am caaxaan a ko yóbbu la ko dese lay rawale cin la ëmb sam xel nag say soxlaa koy ñuluk waaye sa jikkoo koy xam ba sa yéene sottal ko sa jëf yekk ko signalé ko nit ña ñu teg ci seen bët door a xam li nga nar moo tax jëf boo daagoo ca biir fekk ca réccu da koo saatloo waaye jëf du taaw doo réccu duutuma ko dolli mag joo dégg su ma dundan ba génn ci la yàndal kon bu nit dundee diir bu néew dem ba yàlla dogal mu yor bi jaaw yor ab dëkk walla mu doon kilifa ci kër dañ naa bu fi jógee diwa fi wóotu fekk na nit ñi dañoo bàyyiwul xel ci ne sëg yoo dem borom bi jaaw ca gën a néew fooy tolluy dund waaye toll na fay dee ku ne bu ma fekke woon yett def yett nag bu yett amee te defoo yett boo fekke woon yett it doo def yett koo dégg mu ne su ma dellu woon di gone damay lax si jàngi dëkk ba nga dëkk daara nekk fa nga jur doom ji góor ju mat a dalal jàng te yóbbu woo ko mu jàngi boo doon gone it doo jàngi ku ne bu ma fekke woon jamonoy laay ja moom laay àndal dëkk ba nga dëkk jàkka nekk fa te sa tànk du fa jaar soo fekkee woon jamono yonent ba it doo ànd ak moom ku ne bu sama baay doon dund lu ma sant ma def ko lu ma tere ma bakko dëkk ba nga dëkk sa taawu baay nekk fay dund te xamalu la dara bu sa baay doon dund it du la xamal dara kon ah Ousmane Ba yow daan la gërëm ñuy gërëme nit ñu baax ñi ndax dinaa koy wax sama wóllëre wu baax di as gor di sama géer Moussa njaay dooy magay njaay ak cumbe jenn ca ngay ngay ndax musaa am na lu mu réewee te réewul am na lu mu tiitaroo te tiitaruwul waaye la ëpp ci jëfi Moussa moo di nit ku yiw la te it Ousmane damay wax ni nit alali àddina li muy bari bari doom ju baax a ci gën ndax doom ju baax bu ngeen bokkee dund nga am jàmm soo dee bàyyi ko fi fu mu jullee ñaanal la ci doom ju baax dong la su ko mën a amee mënee su ko am ci kenn tayit Ousmane Ba lu waay téye mu rëcc say waajur dala koo joxul ku sa bàyyi yàpp sa ndey boo màggee kenn du la yàpp waaye ko sa bàyyi wekk sa yaay boo màggee kenn du la wekk ndax liggéeyu ndey mbind mu ñu yaxal la doomay gont maas ko ku jàkkaarloog baat ba xam ko tey damay wax toujours ni ku ñuy ñee ku ne sa ndey woon na diggante bu ko yéene jàmm ñeewante nga ko jigéen yàgg nañu ko yërëm ci màggaleegul waaye jigéen yàgg nañu ko ñee ci màggale ndax damay wax ni jigéen bu sëyee ba am fanweeri at noppaluwul yaakaarul lu ko noppal war na kañ ko jox mbaam war ko ko joxe. góor bu sampee kër ba am juróom fukkiyaat at noppaluwul yaakaarul ku ko noppal ko yar mbàgg ko yar war ko ndax am na ñoo xam ne ba ñu ñoo baax waaye gisuñu ku leen gindi am ñoo xam ne saytaane fukk na seeni xel gëlëmal leen ba ka leen bëgg gindi ñu mere la ndax sàcc bu ëddina alali ëddina lay sàcc waaye sàcc bu jëm àllaaxira am xel lay sàcc ab yéefar ibli iblis a sàccum xelam moo tax ku ko bëgg a gindi mu mere la xel ma lañu sàcc ndax doomi sàmm ba ñu la jub ay dëkk ma nekk ba mu wëtal ñu waxtaani njub ginnaam te fekku ko fa moo tax mu jiital aw nag ba ca àll ba mu tëgg ko saagaw